sampu Serigne Bara. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Matiley xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ca Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro. sëñ buy jigasil kàddu waa kër sëñ Saliou Touré mu gàtt rek bu puy bisimilah seex njaga puy bu paree seex sàmba xaya xaya jógul taxaw xaya xaya xaya xaya day taalibeb sëriñ baara di ko xam ni Sédhiou Kolda Casamance Gàmbi toj na ko lépp ngir jëmmi Serigne Bara kon xaye ca kaw ca kanam ñun waa kër Sëñ Bara ñi ngi muy naaj muy tàng fi nga teg sa tànk noonu la loo for rek na dem jëf loo ni coppet nee ko pays biir kër Sëñ Bara aouzu billahi mina sheytaani rajim asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar di nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu warha di wax sëriñ Basiru ni sëriñ Njaga mi mooy rek kàddu gi waaye yóbbante bu ñu sëriñ Cheikh yóbbante ci senegal ak ci diaspora bi ak fépp fu mu mën a doon ginnaaw nag bi ñu nuyoo njaboot gi ñu fi fekk yëpp di nuyu njabootug Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gi yëpp di ko teg ci loxol Cheikh Mouhamadou Moustapha di am mbégte lool ci jataay bii tey waaye Serigne Cheikh wax ni mi ngi yëgal waa cees di yëgal waa àdduna waa Sénégal képp koo xamante ni bii Serigne Saliou Touré am lante woon na ak yow walla am na lenn loo xamante ni bii yaakaaroon na ni bis di nga ñëw nga jël sa loxo teg ci loxol Serigne Saliou Touré sant ko ko mu ngi lay woo ci bis bii wax na ne mi ngi jox ñëpp rendez la vingt cinq fii ci CCS góor ak jigéen mag ak ndaw muy wax ni waa Thiès yëpp nañ ko waajal bu ñu xëyee ci suba ja 8 na fekk ñëpp ca jàkka ja ñu dugg ci oto yi ànd ak moom bu ñu ñëwee jàkkaarloog Serigne Bassirou mii ni ko jërëjëf ndax ki muy jërëjëfal mooy ki nga xamante ne bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mii dafa liggéeyal Serigne Touba te liggéey boobu wér moom mu njëkk a def loolu di lu international Serigne Bass jërëjëf. murid yi bëgg nañu sëriñ Ndiaga kaddu gaa ngoog jërëjëf waxoon naa ko mooy ñun bis bi fu waay mën a jóge ci réew mi bu la sëriñ Baara taxe ñëw maa la jox car gratuite Thiès bu ngeen mën ne téeméeri kaar a ngi nii ma jox leen téeméeri car foofu laa nekk non man maa ko bëggee noonu man maa ko bëggee noonu. lépp. incha allah Serigne Bara kon rendez-vous baa ngoog le 25. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. ñoo ngi leen di nuyu tur Cheikh Ahmadou Bamba Touré. di taaw ci Serigne Saliou Touré. sëñ nga may ma. ma nuyu sëñ Abdou Aziz ak sëñ Sidi. ak mbokk yi. la ko waral nuyonte nañ sànq ma magu maam jaara màngaan la mu soxna mi mbàkkee mu suñ baara kon fii jotaay bii dafa war ci ñun waaye di nuyu tamit maam maam maam Cerno Mbàkke mu Cheikh Ousmane nu rëy ni di ko jottali ay nuyoo mu jottali ñu ko Cheikh Modou Kara ndax cër bi ñu am ci kër sëñ Saari Touré di wëlbatikuwaate di wàccaa ci sëñ Bas di wax ni Mohamed Bachir def nga lu rafet def nga lu matale def nga lu jotale muy rendre hommage yi nga xam ni boole nga ci sëñ Saliou Touré waaye day am mbir yu bari yoo xam ni da nga cee tënku ndax sa cër waajur ba mu amoon Cees loolu rek cër boobu rek te lépp Ceesam la woon lépp it mate Cees kon loole rek war na sëriñ Saliou Touré dem nga boole ko ci lii mu cër boobee waaye sëñ Basiir ne la biral ni ku gis bëgg la ku la gis sopp la ku gis naw la ngir lenn mooy sag taalibe man de damay wax ni jaxasuma ak moom à distance ak télé yi laa koy gis ak di ko dégg waaye koko naw la te bëri naa ci morom te it du ma waxantu te damay wax ni maa ngi doog am jotaay ak moom nii ñu yebal ma fi tamit ci kees Cees gi yëpp yebal ma fi ci turu sëñ Saali Touré ñu yebal ma fi turu sëñ xam Abba Abba Touré dooma waaye ne la bëri nii Cees ñu ngi la bëggee te Cees dañ la wuy si te di nga xam ne Cees wuy si nañ la mbokk yi daanaka loolu lépp fëra tënk woon asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf bés bango seizième édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissé ku ci bëgg ay leeral jokkool ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu